dëgg la parce que nit ko aussi boo xoolee bu waxee rek waxam def benn impacté wala def wax benn ampleur rek war na mën di sóoraal ñi nga xam ni ñoom ñooy déglu wax jooju loolu mën na nekk mais man li ma bëgg mooy tey dialogue bi nga xam moo am tey au niveau du palais de la république ñun loolu moom erreur la ñun normalement ñun livreurs yi cag-cag yi waroon nañu mën a toog déglu ñoom ñu dégluñu parce que son excellence recevoir oon nañu palais xam ñoom xam nañu suñuy soxla de mm-hmm. ñoom xam nañu bu baax ñun li bëgg wax nañ leen keroog conseil interministériel bu amoon jëm ñaaju ak le premier ministre Amadou Ba j'étais suñu président de la fédération Mamadou Ndiaye maa ngi koy nuyu au passage jël na kàddu wax ak moom ñoom xam nañu lu ñu bëgg président promesse yu mu waxoon comme kii lu muy wax nii ce sont des promesses jusqu'à présent gisuñu ko ce sont des promesses non te boo amee say jeunes ñu bëgg liggéey gëm seen bopp booy boo xoolee léegi jëlatuñu gaal gi di dee ci géej gi wàññeeku na phénomène boobu. agression bi quoi qu'on puisse dire wàññeeku na Sénégal tey jeunesse boobu nañ leen jël ñu accaparer leen. segg ko bu mu rafet ñu assainir métier bi booy di yem si cag-cag bi maanaam bañ di dugg si loo xam ne nii bokkul ak dara cag-cag bi dans ce cas di leen mën a identifier kan mooy livreur ak kan mooy agresseur mhm. dialogue bi lan moo tax cag-cag yi ñu fa wax wax lu leen metti loolu c'est pas normal